wax la wax ji jëkk daal ci sama kaw li may fas mooy li may tiim moom ni mu ko indee su dee luñ ma nettalee nañ ma ko nettalewal du ma ci bàyyi dara fekkente ne bii luñ ma xamal lay laa ci xamoon danaa ko wax ndax waxoon naa ko daaw ci moom mi bind wax laa gën a ragal ci ñi may ndax bu dee jariñe ci moom laa ko gën a séentu Euh, bu dee fekk lor itam ci moom laa ko gën a yaakaar kon nag gisuma ci nit ñi lu ma jaral may bëgg lu leen neex ba di wax loo xam ne nii euh, euh, bokkut ak la mu waxoon loolu nañ koy bàyyiwaale xel ci wax dalu ma ci kaw kenn dara kenn lu doon lu ne moom wax ci moom man lay jëkk daal ci sama kaw boo xoolee rek da daal di gis fu mu wax ji laale foo xam ne fii moom loola moom day mel ni maa ko moom man mii wax kon nit ki nag suy wax li ngay wax mu tàmbalee ko ci boppam mm-hmm. ah bu boobaa nag su la wax ja laalee doo ko yedde si moom dellul ci siggante ki wax wax ji ak ak yow mi wax ji jëm ci yow tey ñetti mbir laa indi tawul mm-hmm. ak ñetti yëpp wala léeg ñaar le mm-hmm. benn bi euh, benn dénk la bu mu dénkoon kenn ci njabootam muy Serigne Fall ndax lu baree baree baree bare lu loo xam ne nii lum daan def la ngir di ñu ci di ñu ci yar ak di ñu ci laajire ngir du ñu won yoon wi ñu war a jaar li ci ëpp ci sëñ Mouhamadul Moustapha ak sëñ Mouhamadul Fall loo ko jaarale ndax kenn mënu mënu leen a ci yoon wi yaakaar naa ne kenn ëpp leen ci daraja su jógee tàmbalee wax tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha teg ci Serigne foo foofu yaakaar naa ne kenn du mën a mucc foofu Seex Mouhamadul Fadl la doon dénk ab dénk dénk bi mi ngi nii dafa wax ni euh, ama baab falaa yaxurannaka yaa bunayya xiilu naas yaa sayidana wabna sayidana fa inna afdala siyaaba maktasabtaha li nafsika laa maktasabaha laka abaa'uhum wa judud وإن الفقه في الأحال والأقوال وهي لا في الأعمام والأخوال وإن الشرف في الهمم العالي لا في الرمم البالي لأن الشرف الأعراف يحتاج إلى شرف يحتاج إلى شرف الأخلاق ولذلك قالوا لا حمد لمن شرف النسب وسقف عرب bu noppee danaa ko tënk ci wolof waaye ni mu ko bindee woon mbindum boppam rek laay jàng mu wóor leen ni li wax moom ay waxam du ma ci bàyyi dara moom su dalee ci sama kaw maa xam keneen ku mu daal ci sa kaw bu jógee seeti waaye sa kaw euh, wax ne ko kun ay saameel wala takun awaameel فإن عصاما هو القائد نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وسيرته ملكا هماما وقال آخر في الحسد الموقف فما الحسب الموروث لا در دره يفيد الفتى إلا إلا بآخر مكتسب فلا تتكل إلا على ما فعلته ولا تحبس ولا تحسبن المجد تورث بالنسب وليس يدور وليس يدور وليس يسود المرء إلا بنفسه وإن عد آباء كراما ذوي حسب إذا الخصم لم إذا الخصم لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحق اللهم اهدنا الصراط المستقيم فإياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم لول موي لين بيندون دا wax ni yow sama maa ngi lay dénk na fexe ba bul woroo baatu xuróor euh, la indi waxuñu ku ne bul boom la nag waxu ku bul jaawale waxu ku bul woroo la ko wax na nga fexe ba bul woroo ci wax gi la nit ñi wax naa la yow diw doomi doomi doomi sëriñ diw ak doomi sëriñ diw tudd gi lay tudd di ma tudd fexeel ba bum la wor Sëriñ Tuubaa mooy wax ak sëriñ Fallou ne ko fexeel ba bu bul waru ci li ñu deneen euh, doomi Sëriñ léegi li tax ma wax loolu moo di li nga xam ne nii moom nga def yow ci sa bopp loola mooy la la amul solo waaye li li li sa maam def wala sa baay def ko loola du la jariñ daal li nga def yow ci sa bopp ak la nga jëf mooy dala amal solo fa inna afdala siyaadati ma kasabtaha li nafsi ak càng ak baax daal mooy li nga def yow yow yow yow nit sa laa ma kasabaha laka aba uma juddu li nga xam ne nii say maama la ko defal ak say baay loolu dara la lu dul jëriñ te boo ko dee seet léegi dafa mel ni ñun sukkandikuwuñu fenn ci lu dul euh, sunuy la sunu maam defoon ak suñu baay defoon rek. ñenn ñi jàpp ni sax maanaam da ngay war a toog rek yow jaaxaan di noos rek boo waxee ñu ne ne sa maam a ko liggéeyoon wala bàyyi ko ko liggéeyoon wala léegi loolu dégg ngeen li ci ku ma ku baax ci wax. Sëriñ Fallu lay waxal ne ko bul waru ci loolu. te bàyyi na koo xam ne nii fu ñu ko tuddee ñu ne ëskëñ. Euh, te. soo dindee ci moom diwee baay wala diwee maam boo ko seetee lu bari du fa des boo ci dindee doomi seen diw rek wala surtout seen Tuubaa wala surtout nangam bu loola dajee ci jëmm ji boo ko xoolee ñaare ci ñi demee ni man lan nga fay gis ci luy doxal yoon bi wala lu lu lu kooka def tuuti lay doon loolu lu nuy war di bàyyi xel ndax bari na rëq-rëq yu am fii ak ay xew-xew yoo xam ne dara indiwu ko lu dul sàggane dénkaane bi rek sàggane dénkaane bi dong moo ko indi te kenn ku nekk ci nun war ngay bàyyi loolu di ko seet ñu baree baree baree bari suñu tindee ci ñoom doon seen diwa wala sa tub seen tubaa wala nangam rek kenn ku ne nag yaay war a jëkk dindil sa bopp loola xoolaat sa bopp ba xam bi nga tindee maay maay doomi eh, sëtu sëñ Tuubaa bi wala maay doomi Cheikh Issa bi wala maay eh, doomi sëñ Fallou Diop la naan lan moo fa des ak lan nga des loolu war nañ koy seet nit ñi itam war nañuy seet loolu ndax ñàkk seet bi dañu indi eh, ñuy ñuy dem bay yóbbee di ñu yóbbee jayeen ak i njaaxum ndax umpale bu ñuy umpale suñu bopp ngir ngir ñàkk topp dénkaane boobu rek li mu li mu ci teg mooy ak baax mooy li nga def waaye du li la say maam say baay defal laa maktasabaha lak um juddu loolu du dara du mu ni tekk nga ak baax ak tekki mi ngi ci li nga def yow nit ki ak li nga wax waaye nekkul ci li say bàyyi def ak say nijaay kon war na ñuy bàyyi xel ci di diwee sa mën a jaay bu dara nattal sa bopp rek ba bu ñu dindee loola lu fay des doon ci kooku des sa média bi bu ñu ko dindee lan moo fa des ak lan nga def ci yoon te waxuma la waxuma la doomi kilifa yi waaye ta- doomi taalibe yi taalibe bu ne Sëriñ Tuubaa laa yaakaar am na masuuliya responsabilité lu gaaw lu ci saw lool sa ëllëg yow mën xeyaam ci sa diggante ak sëriñ ndax murit bu ne lu sa lu sa daraja tuuti tuuti tuuti war nga war nga ëllëg nga mën a taxaw ràmmal sëriñ Tuubaa kenn ci jaamu yàlla yi ko waroon a dem sa war murit bu ne sa daraja war naa àgg foofu soo ca eggul rek des na waxuma la nag ab sëriñ waxuma la koo xam ne fu ñu wax ñu ne mooy doomi seen diw wala jarabaatu seen diw wala yooyu da ngeen bàyyi dara ci nit damay nekk waxuma waxoon naa leen ñu def wax ci sama kaw la njëkk daal war na maa seet sama bopp ba bu ma dindee la nit ñay wax lan moo fa des ak lan laa def man te sëñ Tuubaa gàll na ci loosu waxtu woo jébbaloo rek loolu tege na ci saw loos war ngaa rus ëllëg euh, nee na taalibe bu mënta képp ku ko topp ku mënta taxaw ëllëg foofu ramal ko euh, bis bi ñu ko joxee ndigal mu ram ku mënta taxaw ramal ko foofa kenn ci ñi sawara yow mel na ni defaloo ko woon dara ci loolu taalibe bu ne war nay bàyyi xel loolu boobu ma laan nag ku ñu naan yaay doon ni seen diw ak maay jarbaati diw ak maay saa maam ak yooyu ñooñu moom war nañoo weesu foofu loolu dañ koy bàyyi xel. dañ koy bàyyi xel. te itam loolu fi ma ko tuxale du bind ci sëriñ am su jaxate laa ko tuxale dafa am ca biir waxee yoo xam ne jotaay bi laaj ma waral ba du ma ca mën a àgg waaye ci gàttal rek sëriñ Tuubaa moom moo wax loolu wax ne bu ñu eggee ba yonent bi jox ko ndigalal mu ràmm bu keroog bu mënta taxaw ramal ko foofu mel na ni defaloo ko dara loolu moo nekkoon ci bopp ñi ko toppoon man ñi njoroon euh, boole leen ak mbooloo euh, loolal la moo newoon ci seen xaw bopp ba tëluñu woon dara gisuñu woon mbooloo mi ci seen ginnaaw tëluwuñu nopp lu bu day bëccëg am na ci koo xam ne nii ci ñooñu sax daana def yu xaw a doy waar ngir bañ mbooloo ñi ko topp seen bi boole ko moom gàllal koor ko mu bëgg tàqali ak ñoom ñu bañ koo gëmati ba dana jébbalu ci keneen ndax moom mën a féet ba liggéeyal sëriñ am na ci koo xam ne yu mënul raa def loolaa ko def ko ba ba li ko war ci dama sëriñ bi kenn ku mboolee mbooloo ku nekk itam boolewul woon mbooloo ma ngir nga jël mbooloo ma di ko dara ñëwoo wala nga def leen capital boo xam ne nii rek suñu yokkoo sa xel dal suñu wàññi ko nga tiit sëñ Tuubaa wax na ni liy tegtale ni maanaam euh, sëriñ bi defaruwul rek mbooloo mi ko topp su fekkente ni bii bu wàññi ko mu jàll su yokkoo xelam daal tegtal la ni euh, aw melokaanam des na am na fu mu loolu mbind la sax moo xam ne nii ñu bare gis nañu ko waaye vitesse lañ koy rombe duñu ko seetlu léegi euh, di ñu ñu àggale xis ah. misaal bi ñu ciy joxe foofu rek mooy euh, nit bu ñu nee ab transporteur la bu mag yor ay oto yu bari di chauffeur ñu ne wooyee nekkatul génn na àddina génn àddina bu gaaw mën naa am muy chauffeur boo xam ne bii sax ab horaire la yor boo day départ Touba bu sarsee dem Dakar ñu jekki ba guddi rek crise cardiaque daaneel mu faatu ci guddi gi client yi xëy si ñëw ñu ne ah chauffeur bi kër biir xew na ci nit ñi ñëw ñu ne léegi ah diw di taawam de wala diw doomam na ñëw yóbbu oto bi client yi dugg ba jekk chauffeur bi ñëw foofu euh, doon doomi chauffeur ak doon doomi transporteur du taxam du tax horaire bee dem chauffeur bi bu yéegee ci oto bi lii tax nit ñi dem ci mujj day langru sonn dem service yi ñu dàq ko kot dàq ko conduire mu wuur oto ba tàyyi maneereel ko sonn jàng ak di def loola ba xëy li boobu jëm yor permis ci poosam kooku bu ñu ko ne ñëw yóbbu euh, client bu jaaxal foofu war naa fi bàyyi xel bu baax man ñi ma koy sañ wax bu ñu la nee léegi ñëwal yóbbu oto bi di fekk yow mosoo jaar service de ville xamoo nu ñuy dawale foofu diwéy sama bàyyi ak diwéy sama nijaay bu jëriñ foofa dara soo jëlee yóbbu oto bi da nga koy dóor ci garab client yi def wala nga jëm ak ñoom ci jàmm kenn xamul lii Serigne Touba wax Serigne Fallou ci rek laa leen leeral ci ay wolof mu leer nañ ci yéen doon doomi transporteur wala doomi chauffeur taxul la mën a yóbbu ay client da nga jàng dawal ba mën a dawal soo ko mën a yóbbu oto bu sax sa client a loolu da nga dóor oto bi garab gaañ nit ñi loolu nañ koy bàyyi xel lépp mi ngi ci waaye sëriñ bi laa leen di tekk nee inna sharafa fi rimamil nga mi ngi ci passif ak euh, yitte ju kawe waaye nekkul ci euh, baaxu maam yoo xam ne faatu nañ bu yàgg ba seen yàqu ñu la naa sama ma defoon naa ma sama maam ma jaaroon fekk jaaroon faat kooku du teraangay dara sharaf ter tedd nga mi ngi ci Euh, nga def ko wala nga wax ko euh, nga nga am yitte ju kawe euh, def lu lu ñëpp gis kooku mooy tedd bi waaye tedd ngay maam ju baaxal sa maamam bi dafa naan loolu la Sëriñ Tuubaa wax dara loo xam ne nii ni koy waxal ñu nga ca bàmmeel seen yàq foroom na bu yàgg loolu bu tedd la ndax jikko ju rafet dafa dafa euh, juddu bu rafet la wax ne dafa war a ànd ak jikko ju rafet su juddu rafetee te jikko ju rafetu dara lu dara jëriñ nekk fi lii ay ay bayit la rek indi def ko ci misaal euh, ci benn waay bi ñuy wax isaam ci nit ñu njëkk ñi dafa wax ni moom euh, ngóor gi mu yor ak daraja ji mu yor ak tedd nga jëm yor bàyyi mayu ko ko ndey mayu ko ko dafa taxaw xeex jikkoom ak ak ak ak euh, fitam moo ko may mu yor jaasin di taxaw di xeex ba ba ba doon buur moo ko may mu taxaw di xeex ba yor teraangaam waaye teraangaam doon bàyyam mayu ko ko ndeyam mayu ko ko ñu jaayam mayu ko sëriñ bi jël waxi kooku def ci misaal amit nee na mu am keneen ku wax ni euh, Euh, euh, tedd nga ak ngor